salaamaaleykum waa Séné people salaamaaleykum waa Sénégal en particulier sama sama sama soppe yi sama fans yi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi bëggee Anna donc euh, tout d'abord ma leen souhaiter une bonne et heureuse année 2015 bu fekkente ni am ngeen ay questions je vous doon l'occasion incha allah dinaa leen ko répondre ci seen site euh, senepeople point com donc loolu yëpp pour rek euh, gën a am rapprochement sama diggante ak yéen parce que su ma soño wax dëgg yàlla dinaa toog ak ku nekk waxtaan ak moom mais mënul nekk solution bi rek laa am euh, di leen jox euh, rendez-vous ci euh, site bi ngeen poser vos questions donc à vos claviers di leen wax à très très bientôt bisous bisous basta e basta e tutto quello che avevo a dire e ci dico arrivederci ci baci ci baci